Oh, waaw sama gars yi troisième combat la soirée combat de la soirée Boy Ndour ak Catégorie rouge boobu mooy troisième combat de la soirée tey dimanche comme ni ma leen ko août 2022 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur jamaïcain à la tête de la structure Jam Production organisée Suarez, é outro do

ndeysaan le poulain de Magou na combat bi le poulain de Magou Mbaye ñàkk na combat bi ndeysaan waaw waaw bébé Ousse mi ngi noonu na bëre bi daan na jël bu rëy daan na pointu am na déception am na lu ko am na lu ko metti mi ngi noonu noonu la bëre daan na daanu la bébé Ousse daan na ko bébé Ousse daan na ko troisième combat de la soirée troisième vainqueur la soirée mi ngi bébé Ousse moom ngeen di noonu le vainqueur le vainqueur le vainqueur mi Boy Ndour moo ko nekkoon troisième combat de la soirée troisième vainqueur de la soirée Bébé Ouz daan